moo wax li nga xam ni moom laa xam ci usman Sonko ak situation réew bi fu mu toll le cas Ousmane Sonko Ousmane Sonko un homme qui veut être président à tout prix président à tout prix président à quitte à tuer, à passer, à enterrer 17 millions de Sénégalais. Il veut être président, pourquoi En fait, je me pose des fois la question, en fait, il veut être président, pourquoi Je pensais que, bu nit bëggee nekk président dafa bëgg a defar réew mi maanaam da nga bëgg tabax da nga bëgg yokk askan woowu danga nga ko bëgg a yokk comme capacité de vivre en paix de vivre dans la dignité mais yow saa yoo taxawee yaa ngi ne taal taal taal leen taal leen dinañu taal réew mi dinañ ko taal dinañ ko def mu nekk doom mais tu veux être président pourquoi j'ai jamais entendu Ousmane Sonko ne leen on va construire on va consolider on va apporter un mieux-être on va apporter l'espoir déedéet on va casser si Macky Sall ne veut pas faire on va brûler vous pouvez aller casser les maisons vous allez tout il incite à la limite le citoyen sénégalais à la débauche au vol à l'aise à être pyromane parce qu'il demande aux enfants d'aller brûler et ça ça te mène directement en cour d'assises right aux assises chambre criminelle Il demande aux enfants d'aller tuer. Mais c'est extraordinaire, c'est quel Sénégal il veut construire à partir des cendres, des ruines et des cadavres. Donc, il est arrivé un moment, nous avons devant nous un homme benn nit boo xam ne dafa piétiner lépp li nga xam ne mooy fierté wu Sénégal tey nañu waxante dëgg n'est pas président de la République qui veut, n'est pas ministre de l'Intérieur qui veut, n'est pas procureur qui veut, n'est pas euh, première dame qui veut. donc li ñu yàlla jox te ñun ñu war ko tiitaroo mu nekk li nga xam ni moom la ñu am te mu nekk li gën a précieux notre élite notre élite tey amatul ku ci baax ñëpp c'est des corrompus quand on n'est pas avec lui tu es corrompu tu es un voleur tu es yow avant ñu koy jàpp ci mbiru Sweet Beauté ku mu ku ko neex ne ko njaalookat nga ba ci un des grands chanteurs dans ce pays dafa mel ni ak ma ko dal parce que semaine ba mu ko jiiñ ni dañ ko jàpp ak benn sox jigéen semaine boobu la moom dossier Adji génn pour vous dire que yàlla bëggul yenn yàlla moo ko bëggul ci boppam moom yàlla lay xeexal tey li muy def nii ay mbugal la yàlla moo koy mbugal di ko wot di ko xëcc pour mu tuub pour mu defaraat toogaayam mais il n'a pas compris boo leen seetloo lu mu gën a góor góorlu pour taal Sénégal muy gën a dugg moom ci problème problème am di gën a grave problème am di gën a métti te ba tey mënul fexe ba delloo boppam ci yàlla nit koo xam ni képp ku àndak yow bu fekkee ni dafa rey nit walla mu doon sàcckat ci saa si dafay nekk ku sell ba ci koo xam ni dafa doon jël ay jigéen di leen boole ak ay góor ci néeg ba noppi génnee caméra yi parce que xam ngeen ni caméra wu Sud daanu woon fonctionner vous le savez et ça a été ça ne fonctionnait pas parce que pour protéger Adji Raby ak xale ya fa nekkoon mais moom il suffisait que mu am caméra te mu bind ni que caméra y a des en action bu bindoon ni qu'il y a des vous êtes compte vous êtes surveillé vous êtes filmé mais ku fa dugg doo fa def naka sadu noonu ba viol di fa mës a am donc moom moom mettre en danger xale yi ba mu génnee caméra yi wan nit ñi ni que caméra yi fonctionné wuñu donc voilà aujourd'hui kooku la ñuy wax di ko ooyee Ndeye Khady mu sellami te ci réew moo xam ni on est ak vous y quinze pour cent de musulmans diine musul l'islam ne bu laal bul jege catholique yi ne sa loxo fu mu lay indilee baakaar nga dagg ko sa bët bu la nagee indil baakaar nga nga génne ko nga lokkati ko sa tànk bu la nagee yóbbu ci baakaar nga dagg ko dëkk boo xam ne dafa classé parmi les cinq premiers pays les plus religieux au monde ngeen ne ki nga xam ne day jël ay xale ay jigéen boole leen ak ay góor dugal leen ci néeg tëj néeg bi dindi caméra yi ngeen ni kooku dafa sella c'est une insulte pas seulement à la morale mais à la religion musulmane que ñuy instrumentaliser mu sellami di ko teg ci koo xam ni njaaloo la doon favoriser moom la doon suxat moom la doon jëmbat moom la doon propager dans une frange de la jeunesse sénégalaise di leen exposer à des hommes puissants moom muy muy récupérer les avantages liés à ce plaisir qu'il procurait à ces hommes puissants là et dans ce pays cette femme on l'appelle dañ koy def héros tey parce que day taxaw di théâtre nekk tribunal ka nga xam ni aji saa moo moo indi aji euh, aji saa euh, ki indi aji saa ci ndey xadi ndey xadi bañ koy interroger mu ne Aïcha moo ma booleeg ndey xadi euh, aji mais ba Aïcha taxawee témoigner ba mu gis ni témoignage Aïcha dafay confirmer li aji saa wax mu taxaw yëkkati loxo yi jure ba que laay laay la ma xamuma ko musuma kaa gis kii musuma kaa teg bët ki koo xam ni ba ngay témoigner sànq wax nga ni Aïcha moo ma booleeg moom ñu indi Aïcha taxaw ba mu waxee la la mu la la arrangé wul nga ni Aïcha xamoo ko musu koo gis kooku ban crédibilité la ñu mën a apporter à cette dame là ba di ko tuddee Ndeye Khady bu sell mi voilà Ousmane Sonko un homme qui a piétiné toutes les règles du savoir-vivre toutes les règles du vivre en commun toutes les règles républicaines, toutes les institutions de la République. Parce qu'au-delà de l'affaire Adissa, il y a l'affaire Mambéignan, où il a diffamé pas seulement Mambéignan, mais toute l'administration, les services financiers qui sont chargés de veiller à ce que xaalis bi nga xam ne ñun ñoo ko bokk nit bañ ko mën a jël di ko pasal sal sal euh, jël vingt neuf milliards ci xaalis boobu te do bàyyi trace moo wax ni kayit yaa ngi di téye nañ ko nous avons les documents ils sont là le ministre Mame Mbaye Niang a détourné milliards les documents sont là ils sont même étonnés parce qu'ils savent pas d'où nous provient d'où nous trouvons ces documents qu'ils nous cachent mais quand vous attrez à la barre on vous demande les documents vous dites je l'ai lu sur internet mais soyons sérieux et c'est ces deux arguments là qu'on présente au monde pour dire que le président Macky Sall aurait peur d'un adversaire trop fort, trop puissant. Mais cette puissance-là n'est établie par aucune statistique. Parce que lors des dernières élections, M. Ousmane Sonko était dans une coalition. Lors, c'est-à-dire euh, les élections législatives, il était avec M. Khalifa Sall, qui a un poulain, Barthélémy Diaz, qui est très populaire. Il avait également, il me semble, le PDS, Et toute une... le PDS qui est le... en réalité, quand on parle du, euh, par rapport au maillage du territoire national, le parti, le premier parti d'opposition, en réalité. Quoique, même si Karim Wade n'est pas là, lolo d'une cohérente, que ci maillage là, après le PS, c'est le PDS qui a le meilleur maillage du territoire national. De grec. Donc, yo, nga ñeu fekk ñoñu, nga ni yow tu es ya ëpp nit te amoo benn instrument de mesure boo teg du élection parce que élection yooyu da ngaa dem demoo yow kese da nga ànd ak coalition donc mënoo wax ni mënoo wax ni que yaa ëpp mbooloo loolu yëpp dafa bokk ci la fabrique du mensonge de Ousmane Sonko la manipulation des masses et la manipulation sans sans sans aucun c'est-à-dire sans gêne une manipulation bancale c'est-à-dire sans, sans c'est-à-dire sans substance, basé sur rien d'autre que sur euh, ses rêves, lui, à lui. Ce dont il rêve, il les transforme, ses rêves, il les transforme en réalité. En fait, il, il rêve, il rêve, euh, il parle. Ses rêves, c'est son, son discours traduit les rêves de Ousmane Sonko, qu'il ne cherche même pas à étoffer d'arguments solides sur le plan scientifique. Parce que quand on dit que je suis majoritaire dans par respect pour nous, intelligence, des statistiques qui le prouvent. Il n'y a aucune statistique puisque en 2019, il est arrivé deuxième. Il avait une l'a abandonné. Il n'est plus avec cette coalition qui est aujourd'hui passée du côté 16% lors des dernières élections, il doit être aujourd'hui éventuellement à autour de parce que toute la coalition qui l'a accompagné aux élections l'a abandonné, l'a quitté. di bëgg nit ñi xam lan moo tax xale bi porté plainte surtout lan moo tax li nga xam ne xale bi porté plainte parce que nee na kilifa bi daf ko sàkku ñun nag li ñu taxoon jóg mooy ñu dégg baatu xale bi ñu delloo xale bi ay tiiteem delloo ko ay droit am parce que sénégalais sa comme ñëpp loolu nag mun naa ne réussir nañ ko li tax ma ne réussir nañ ko mooy dem nañu ba xale bi justice nangul ko mooy mu am procès xale bi nag am na procès fi mu toll nii leer na moo si des mooy verdict moo tax ñun ko CODAS moo tax ñu dellu si comme dafa am loo xam ne dañ ko commencé woon mooy jàppaleel xale bu jigéen bi moo tax léegi ñu dellu fii nag di leen wax ni lan moo ñu taxoon jóg lan lañ ci def ba fi ñu toll nii mun nañ ne sax yëf yi jeex na tàkk mun nañu wax loolu parce que verdict rek moo ci des mais nag li ci doy mooy euh, yëf yi bi muy xew dafa am ñoo xam ne ñu si bari ngeen baal mu yéen journaliste yi ñu si bari defuñu seen liggéey defuñu seen liggéey ma joxe exemple bu ndaw mooy ki nga xam ne moom la Ousmane moom la Adji saa jiin moom dafa ne dafa am fu dafa am foo xam ne dafa demoon di faju ji ñu laaj ko deux cent mil mais période boobu rafetoon na journaliste yi dem fi nga xam ne foofu la waa ji ne daf fay deux cent mille lay fay ngeen jox ñooñu micro laaj ko fii séance ñaata la ñuy fay parce que journalistes yi ñoom ñoo war a wax askan bi lan moo xew mais loolu loolu vraiment jaaxal na ñu bari loolu yëpp passé na nag parce que fi ñu toll nii mooy yegg nañ fi ñu war a yegg mooy xale bu jigéen bi dem na procès léegi verdict la ñuy xaar loolu daal moo taxoon euh, ñu ñëw tey pour mun naa ne. jeexal mbir mi noonu laa ko mën a wooyee mooy jeexal mbir mi parce que yëf yi mën nañ ni jeex na jeex na tàkk comme ñaari at ñu ngi ci woon comme yi fi jeex na moo tax tey Françoise Hélène ngay ñëw pour wax leen fan la ñu commencé ak li nga xam ne moo jote xew yi lépp ci yoon bi ci deux ans yi da ci xew ba ci ba ci jour procès bi tam da ci xew loolu la Françoise Hélène ngay ñëwoon tey di wax euh, beneen bi mooy euh, Sénégal jàmm mu ngi fi parce que boo dégloo réseaux sociaux yi wala ngay xool télévision yi da yaakaar ni jàmm amu fi mais boo xoolee yeneen dëkku Afrique di nga xam ne Sénégal jàmm mu ngi fii léegi loolu nag li ko waral mooy euh, dañu am benn njiitu réew boo xam ne euh, dafa xam li muy def lan la xam nu ñuy yore réew moo tax réew mi amul benn benn problème ma loolu laa gis euh, loolu laa xam ne rek buggoon naa ko wax ci olof léegi ma bàyyi Françoise Hélène Guèye moom euh, mu continuer affaire yi en français merci beaucoup jël